donc ginnaaw daaka bi nag ngeen taxaw Kaffrine. waaw du ko baakoo di def moom ci boppam euh, ci ndigalam ba tey. Mhm. Euh, ndax dañoo euh, bi ñu jógee daaka dañu fanaan Tamba rencontré militants yi. Mhm. muy quatre départements yi nekk Tambacounda région de Tamba. dajeeg ñoom waxtaan ak ñoom yeggal leen cant ak ngërëm président de la république jëme ko ci militants yi ak militantes yi. Mhm. noonu aussi lañ ko defee Kaffrine région bi la ñu dajale. waxtaan ak responsable yi àggale leen aussi cant ak ngërëm président de la république ndax moom def ko baa ko woon def bu koy bu demee Tamba day recevoir ñëpp waxtaan ak mhm. ñoom jaaraat ci yoon bi aussi waxtaan ak ñëpp li nag aussi li ñu def nii ci turam lañu ko defee ci ndigalam aussi lañ ko defee ah ndax mën nañ am yaakaar mu continuer ci yeneen région yi ci fan yi di ñëw am ñu jàpp ne xëy na dangeen a fas yéene jugaat soobu ci langue politique yi waaw incha làmb langue moom xam nga ne du du du du du jeex du weesu tant que parti politique baa ngi fii Euh, euh, euh, nit ñaa ngi fii suñu réew a ngi fii nit ñaa ngi dund am kattan ak wér Euh, dañuy politique ndax mm-hmm. ci parti lañ bokk maanaam ak am ay euh, kuréel yeneen yoo xam ne dañ ci bokk même bu ñu bokkul ci biir parti bi mais liy dundal parti bi ay lu koy doxal donc euh, jàpp naa ne loolu président Macky dana ci taxaw waaye responsable yi nga xam ne moom fii la leen bay te ñu am maturité mën a doxal li nga xam ne ci ndigalam la ñoom it danañ ci taxaw loolu incha allah ci fan yu néew Euh, bépp département euh, bépp commune fu ñu war a rencontrer militants yi sant leen gërëm leen mhm. ndax nag ci ay élection lañ jógee mais it avant yi yeneen élection ndax dañuy àndoon ak président lu mot ñetti at ñuy opposé wu ñu ànd ak moom mu gouverner euh, fukki at ak ñaar kon bu demee ba nga xam ne toll nañ ni war nañu delluwaat aussi même bu ñu ñàkkee nguur gi santaat nit ñi gërëm leen waaye it jëlaat xool li nga xam ne moom moo waral Euh, euh, daanu boobu ñu jéem a dajalewaat mbooloo mi ak nit ñi ak sympathisants yi dajale leen ngir euh, jëmmal yeneen élection ndax du benn élection rek réew mi am am nañ hmm. yeneen élection yoo xam ne mu ngi suñu kanam ci étape yooyee nee nañu président Sall woote na téléphone saafonte ak responsable yi am ay bataaxal yu mu teg ci loxoy militants yi ndax mën nga ci ñëwaat mooy li mu tënk ci bataaxal yi rek ndax euh, ñëpp xam nañ ne laataa mu fi jógee euh, euh, def na bataaxal waxtaan ci ak li ma la wax muy secrétariat muy direction parti bi muy tous les responsables yi nga xam ne ñoo nekk ci gox goxaan yi ne leen mu ngi leen di sant di leen gërëm. Mm. ci li mu bind ci bataaxal yi rek loolu la firndeel aussi ci téléphone bi. mais par rapport au futur li war a ñëw ëllëg. amul ci wax waaw mais li li li war a ñëw ëllëg loolu moo mooy li nga xam li ñu war a ñëw ëllëg mooy ñu dajaloo booloo. woon nekk benn waxtaan euh, ci suñu biir ba mhm. nekk benn nekk benn say maanaam jublu li nekk ci suñu kanam dépassé li nga xam ne passé nañ ko aussi jëmmal li nga xam ne moo nekk suñu kanam ah, message yooyu rek la maanaam li nekk seen kanam ce sera toujours avec le président Macky Sall euh, waaw tam nga fi ñi ba fi may wax ak yow président Macky Sall mooy njiitu alliance pour la république moo jiite aussi Benno Bokk Yaakaar mhm. do ci ñi ñi lépp lu ñuy doxal fii ci partie bi ci ndigalam lañ lañ koy defee ci supervision am lañ koy defee donc euh, jiite parti gi jógeegul ci bopp parti bi. Mhm. et Amadou Ba dans dans tout ça. waaw xam nga Amadou Ba jàpp naa ne responsable la ci biir parti bi militant la ci biir parti bi donc nag du moom rek ndax ñi nga fa gis aussi euh, ñun passé wu ñu dix responsable politique. Mhm. donc am na ñeneen ñoo xam ne ay Mbaye Ndiaye ay maamu sale ak ñeneen ak ñoom Seydou Gueye ñoom euh, Lixar ñoom euh, Mor Ngom. Mhm. ay ñoom Abdou Mbow ñu bari na ñoo xam ne mënoon nañ dem mais du ñëpp mën a dem. Mhm. comme nu mu ko daan defee buy dem tànn ay quelques responsables ànd ak ñoom noonu rek lañ tànnee mais du parti bi yëpp. yëpp lañ yóbbu. Mhm. mënuñu yóbbu parti bi yëpp. Ah, mais nag bëgg a laajte mooy par rapport au futur du parti. échéance yi ñëw. alors que mhm. élection yi passé Amadou Ba moo ko dirigé woon. waaw maanaam jamono ji mooy le chef de l' opposition. nga ne ma léegi le président ba tey moo téye parti bi ñaari kàngam yooyu est ce que du du xaw a indi jiixi jaaxa ci kanamu. nit ñi waaw xam nga Amadou dafa nekkoon suñu candidat. ci mhm. élection yii ñu dégmal. yii ñi passé mais yii ñi weesu mooy euh, euh, nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar nekk candidat Alliance pour la République. donc ci ndigalu président Macky Sall kon. loolu ñu man ñun jàpp nañ ne loolu moom passé nañ ko. lii ñëw est-ce que euh, euh, euh, ba tey Amadou Ba mu ngi ci walla nekku ci loolu moom xalaat la ak laajte boo xam ne Amadou Ba lañ ko mën a jagleel. Mm-hmm. ñun li ñu jàpp mooy ci parti bi ñu bokk. bokk ko ak moom ba tey mu ngi ci biir parti bi dégguñ ne Amadou Ba ne génn na. alliance pour la République am na jéego bu mu taxawal ba élection yi jàlleeg léegi. déggu ma ko wax dégg yàlla dégguma lu mu wax wala lu mu jëf pour euh, luy euh, génn wala luy nuroo leneen déggu ma ko ci lenn wax dégg yàlla bu ma waxee ne dégg naa ko ci lenn damay wax rek wax. dégg ah, yàlla parce que parti parti opposition. Mm. Euh, doon na baaxee occuper terrain politique bi. te ki ci jiitu mooy le leader de l' opposition ki demoon élection ñàkk. Mm-hmm. Amadou Ba ñu Euh, agréablement surpris ah de de vous voir ensemble wax waxtu ëllëg. Mhm. wax na yéen ngi dëggal seen bopp. Mhm. mais moom doon nañ xaar lu mel noonu si moom aussi depuis bi mu ñàkkee élection présidentielle. waaw xam nga bokk benn parti. xam nga parti kuréel la. Mhm. kuréel boobu am na ku ko jiite mu dajale ay yeneen parti mais parti bi ñu bokk dafa am njiit. muy président Macky Sall. donc mu am ay ay yeneen responsable ñu am ay instance yoo xam ne muy directoire national muy euh, aussi secrétariat exécutif euh, euh, nationale mm-hmm. donc loolu yëpp du benn nit du ñaari nit mais njiit li moom ba fi may wax ak yow président Macky Sall mooy njiitu alliance pour la république mm-hmm. li ci des nag liy ñëw ëllëg suba gannaaw suba suñu borom moo ko xam mais li ñuy jàpp nu ñu jàppee woon suñu parti nu ñu ko téyee woon ak nu ñu ko doon doxale ci loolu lañ nekk tey ak